message bi dama ko adressé directement au président Macky Sall en tant que membre fondateur ci APR particulièrement ci DSE bu amerique euh, di ci Washington ci Oregon ak Washington State euh, monsieur le président dafa am baatu olof bu naan buur aayut waaye dag yaa aay euh, te tey dag yi la topp monsieur le président duñ say dagu démb say dagu tey lañ ndax say dagu démb ba muy metti nga nekk si jafe-jafe nga jaaxle euh, ñoom ñoo taxawoon defan bouclier ànd ak yow gëm xeex bi gëm ne dañ la bëgg a sacrifier gëm ne dañ la tegal ay plan gëm ne Ablaye wàdd daf lay xeex bañ koy ànd ak yow di gëm loolu wéetoon nañ si waaye boobu dëgg rek moo ñu si ñoroon boobu machine bi fi nekk muy machine politique bi fi nekkoon te Abdoulaye Wade jiite ko yoroon ko gérer consul con consulat yi gérer ambassade yi gérer poste yëpp moom lépp yor alalam yor xaalis di ko fi def ay nitam toppoon ko fi yoroon benn mafia bu doy waar ci réew mi di contrôler système bi ci kaw ba ci suuf di jaay doole di nappaate di def lu nekk euh, waaye doole nguur président du doole makisal Sall président Macky euh, lu ma ne buur ay ay dag yaa aay lépp loo dugg wala échec politique boo dugg wala problème boo am wala plan politique boo am dagg yi ñoo la ko teg ñoo la siy dugal ñoo lay teg loo plan ñoo lay engagé loo ñoo la éliminé woo ay nit ñoo la gëmloo loo xam ne da jàpp ne loolu mooy dëgg dem nga ba jàpp ne loolu mooy dëgg ñooñu tamit boo xoolee ñoo la ñoo ñooy sa problème ndax ñoo képp ko mës a àndal démb ñooñu ñoo fexe ba nga tàggu ñoom euh, monsieur le président jot na nga fàttaliku démb si say jafe-jafe ba ngay ut nguur gi jot na nga fàttaliku démb la nga daj ci assemblée nationale. daj nga nga fàttaliku démb plan yi amoon ci blanchiment d' argent bi ñu la doon jéem a takkal jot na si nga fàttaliku démb plan plan yin amoon pour tëj la kaso te mu leeroon la te nga ñëwoon fii si Touba mu tombeek yëpp Baara nekk fi yal na yàlla dolli leeram fa nga jaar fa nga jaar mu ngi lijjanti ko toppatoo ko ba na teg loolu yëpp si suuf ba si plan plan bi gars yi amoon pour dugal la si blanchiment d' argent bi. bu ma dellusee nag man mii di wax ak yow nekkoon say ci euh, partisan de euh, yu jiitu ñu bokk ci ñu samp Washington cellule Washington ànd ko DSE bu Amérique euh, bi ngay woote Washington di waxat kamara pour ñu jàpp samp section Washington te jàppale la ndax stratégie bi mu doon si amerique puissance démocratique euh, ci côté diplomatique ñun ñu ñëw samp cellule bi koroog bi nga xam ne ambassadeuru Sénégal Amérique bi nekkoon Sénégal demoon na seeti maître Abdoulaye Wade si si si palais bi di wax ak moom pour que mu teggi tànkam Amérique mu ngi bàyyi xel li xew si réew mi te dafa jox instruction bu jógee si kaw ñëw si moom mu war a ñëw wax ak yow di waxaat Abdoulaye Wade loolu suñuy pexe la woon. loolu lettre yi dem ci sénateur yi bu bu bu state of Maryland ba lettre boobu déclenché wu ba egg ci Barack Obama ba egg ci comité sénat bi ñun ñi ñoo ko dox boobu ñu ngi am Washington ñun ñoo bind lettre bi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo dugg ci média américaine bi ñoo propagé problème bi ñoo ko siiwal ba mu egg ci niveau boo xam ne euh, White House mooy Maison Blanche dafa mujj yónnee émissaire dafa mujj wax ambassadeuru États-Unis bi nekk Sénégal mu ñëw toog ak yow wax la wax ak yow parce que ci problème diplomatique bi am wax ak Abdoulaye Wade loolu ñun ñu ñoo ko dox lettre yi ñoo ko bind loolu ñun ñoo ko dox ci Washington diplomatie boobu ñoo ko dox kon bu àdduna demee ba tey nga nekk ci nguur ñu ànd kook yow nga nekk président di doxal sa doxal ñun ñu continuer doxal fañ doon doxalee ñun muy gëm suñu réew gëm ne réew mi kon waru koo mën a euh, jël doomu réew mi wala alalu réew mi wala euh, nit réew mi wala xale yi réew mi sacrifier leen ngir benn intérêt bi nit wala benn intérêt benn benn mekk benn benn benn machine bu fi nekk machine politique bu fi nekk ñu ànd kooku yow président Macky Sall ba nga gañe nekk président ñu ànd ak yow ba nga bëggee deuxième mandat def suñu moyens tous les moyens ah, ba nga toogaat fii pour que rek luy doxal réew mi la suñu réew Sénégal ndax bañ koy def defuñu ko pour euh, gain politique defuñu ko pour am luñ soxla si yow parce que say campagne say activité campagne say activité politique bu dee si Washington bu dee si activité lépp ñun ñoo koy financer suñu bopp amul benn fond boo xam ne mës nañ la ko laaj kon ñun ñoo yàgg di jër di def si yow di def si APR di def si sa parti ba nee bay génn APR aussi ba ñu demee ba bëgg a génn APR gis na ñi la wër ak yow la nga doon xeex bokkut la parce que ñoo ay nit ñu loo xam ne dañoo nguur rek lañu nam ay nit ñu amul benn valeur ay nit ñu amul benn yéene seen réew ay nit ñoo xam ne euh, xalaatuñ ne dañoo war a jëriñ seen réew waaye dañuy jëriñoo seen réew la ñu gis la majorité si ñu la wër gis ay ay ay ay ay li nga diggee woon lu bëree bëri muy échec defoo ko ay promesse defoo ko ay ay ay ay engagement defoo ko mais am na lu bëri lu ñu la comprendre xam nañ ne li nga yéene si gouver gouver booy booy jël booy li ngay yéene ak li nga mën a gouverner bokkut loolu comprendre nañ ko parce que xam nañ système politique ni muy doxee xam nañ réalité monde bi ni muy doxee waaye nag du tax nga ñëw toog fi tàmbalee def lu raw lu Ablaye Wade bëggoon la def di sacrifier. ku jug am ambition politique nga am ak moom problème ba sacrifier ko ndax jàpp say nit wala yow wala say nit wala ñi lay tegal plan wala ñi lay tegal sa mécanisme jàpp ne sacrifice sacrifier kooku mooy tax nga am moo lay moo lay jàppale. leader politique yi fi nekkoon ñëpp war la opposé teg nga benn mécanisme bu leen sacrifier pour te pourtant bu Abdoulaye Wade defan loolu wala ñi ñun ñii bu ñu seetaanoon lay Wade def la loolu wala ñu sëñ Baara seetaan Abdoulaye Wade def la loolu kon tey waxatuñu la. kon ñi la ànd ñi nga xam dañ topp sa ginnaaw nga xam ne lu am nguur jaral na leen lu nekk jaral na leen sax sacrifier nit te sacrifice yooyu gis nañ ko bu nekkul sacrifice yoo xam ne dafa nekk physique dafay nekk ay sacrifice euh, yoo xam ne euh, mystique la xam nañ ko bu baax parce que on vit gis nañ fi ñu ñu bëree bëri tey seen làmmiñ tëj nañ ko ñu bëree bëri jugee nañ fi ñu bëree bëri feebar nañ ñu bëree bëri ku song mécanisme boobu rek gars yi aw noonu la faagal bu nu mënul jaar feneen jaar si benn liquidation physique bu Sonko bi nag man doon partisan patriote élection bi mujj yow laa àndal yow laa campagne yow laa jàppale parce que dama gëmoon ne waroon nañ la mën a jox deuxième mandat. mais li ñu gis muy nga bëgg ko teg muy sacrifier euh, say militant wala say nit wala ay nit yu ànd ak yow bëgg teg un plan boo xam ne plan bu complot te ku dafut sax xam ne mbir mi ni mu demee nii ah, am na loxo bu diis boo xam ne mu ngi ci ginnaaw te ki ki sañ loolu wala ki mën loolu am na ay privilège ci dëkk boobu dëkk bi waxuma nag ne Sonko defut parce que moo xam la fa xew xaw ma ndax dañoo am déggoo nañ sa lañ doon def moom ndaw si xaw ma seen relation privée moom ndaw si lijjantuma seen relation privée moom ndaw si mais ce qui est sûr et certain ñëpp xam nañ ne chaque fois y a des yoo xam ne pour éliminer opposant la fii Sénégal the game is not fair ñëpp xam nañ ko kon président nanga nga fàttaliku démb na nga fàttaliku bu ñu la bëggee jiñ blanchiment d'argent na nga fàttaliku bu ñu la bëggee jiñ ay ay affaire arme nanga nga fàttaliku ban lay sobee na nga fàttaliku yooyu yëpp na nga fàttaliku xam ne euh, li yàlla bind si jëwut Sonko wala keneen ki lay remplacer da si siy ñaaw rek waaye mënoo ko tere am képp ku ko opposé it da nga ñaaw rek waaye mënoo ko tere ndax ndigalu ndigalu suñu borom moom bu amee rek am na waaye nañ rafetal mbir mi nañ rafetal game bi nañ rafetal jeu bi nañ ko joué nañ ko nañ ko joué nañ def euh, play fair play loolu mooy dëkk thank you